dimanche 9 mai 2021, le ministère de la Santé et de sociale a les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1053 tests réalisés, 27 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,56%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 7 cas contacts suivis par nos services, Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres, et 20 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 17 cas, dont 2 à Bop, à la Médina et au Point E, à Dakar Plateau, Djamnyadjo, Gueltapé, Kermassar, Liberté 6, Mbao, Ngor Rebeuss Sicap Baobab Sicap Foire et Yoff. Dans les autres régions, on deux à Matam et à Tamba. 49 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 14 cas graves charge dans les services de réanimation. Deux décès ont été enregistrés le samedi 8 mai 2021. l'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 40 692 cas ont été déclarés positifs, dont 39 384 guéris, 1100 dont 39 384 guéris, 1119 décédés et donc 188 patient encore su traitement tey bésu dibéer juróom-ñeenti fan ci weeru mais mi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waa waajalim ci junni ak juróom-ñaar fukk ak ñetti test yi ñu def ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñaari cas contact mooy ñu jot ci mbas mi fekk dañoo jaxaso woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci ñaar fukk yu ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fiñ ko jëlee walla ki leen ko wàll ñu seen lim ni la tëddee ci ndakaaru ak li ko wër am nañ ci fukk ak juróom-ñaar yu tëddee nii ñaar ci Médina Bopp ak Point E benn ci Dakar Plateau Gueule Tapée Rebeuss Sicap Baobab Sicap Baobab Liberté 6 Sicap Foire Yoff Ngor jamñaajo Kër Massar ak Mbao ci région yi am nañ ci ñett ñaar ci Matam ak benn ci Tambacounda ñeent fukk ak juróom-ñeent si malade yi entré woon hôpital ak ñeent ñu doon topp ci biir kër yi wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu si yàlla ànde fukk ak ñaari malade ñoo nekk réanimation ñaari malade ñàkk seen bakkan bu su démb gaaw juróom ñetti fan ci weeru mai mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak malade yi topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bësu tey dale ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na ñeent fukki junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar si malade ñi nga xam ne jotoon nañ ci doomu jàngoro ci ñooñu fanweeri junni ak juróom-ñeent ak ñett téeméer ak juróom fukk ak ñeent wér nañ si junni ak téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ñoo ñàkk seen bakkan mu des téeméer ak juróom-ñett fukk si lalu hôpital yi ak malade yi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi